man de vraiment euh, pour un parti comme le PDS bi nga xam ne vingt six ans daf ko xeex les plus grandes avancées démocratiques fii Sénégal euh, mun nañ ci mettre mun nañ ko mettre à l'actif enfin euh, post indépendance mun nañ ko mettre à l'actif du du PDS je n'ai pas compris hein, entre nous je n'ai pas compris que 2019 ñu bañ am élection ñu bañ am élection bañ am candidat ñu mën a toog di tergiverser di tergiverser ba deux mille vingt quatre ñu bañ a am candidat waaw parce que man dama jàpp ni que PDS bu bëggoon dëgg dëgg dëgg dëgg candidat de deux mille dix neuf à deux mille vingt quatre ils allaient travailler. dina xool li ko dalal ci deux mille dix neuf mu ni bii moom dootuma dalal. dalaat ils allaient travailler sur de très bons profils. parce que y' a encore d' excellents profils au PDS. Ah, bien sûr je le dis y' a d' excellents profils au PDS mais euh, quelque part man. je me suis dit c'est mon c'est mon point de vue ñoom waa PDS dañ ne c'est Karim Wade ou c'est rien loolu est-ce que du rejoindre lu Djibril Wade doon wax sax. waa xaw ma ndax loolu la mais en tout cas ils se sont dit c'est Karim Wade ou c'est rien Karim par force Karim rek Karim dong. donc mais loolu. en 2019 ça peut se comprendre. oui parce que boobu dans dans un combat de de Karim. il était fraîchement libéré il était au xam comprendre ñoom nu mu demee il voulait travailler pour que Karim euh, revenir mais je pense que aujourd'hui avec les discussions avec le euh, euh, euh, gisee Massalikul Jinaan bi là aujourd'hui nag doon yi dafa war a changer on plus Karim plus le voir di communiquer ak moom di wax ak moom kan moom seree ñëw waaw mais moom loolu moom moo ko xam non non ah. mais mais mais ma rek waaye ma jow s'il te plaît s'il vous plaît ah c'est-à-dire man dama boo gisee man ne man j'impute la responsabilité au PDS 2019 après je a ah eu le fameux protocole de Conakry man bokk naa ci ñi Alpha Condé waxal man bokk naa ci. biir campagne bi. waaw man bokk naa ci ñi Alpha Condé waxal. bi Wade recevoir Sonko. voilà ci benn hôtel. mu ci biir campagne bi. ce qui a été convenu durant le dans le protocole de Conakry il y a l'une des parties qui a refusé de signer sax mais PDS man jàpp naa ne que bu ñu defee une pour jéem maam euh, créer des conditions de souplesse pour Karim ñëw mën a bokk doon un document bi nga xam ne lu l'une des parties refuse de le ratifier mais man PDS à partir de ce moment war naa xam ne kon Karim mii c'est la personne de Karim qui pose problème dinaa ut keneen man noonu laa gisee waaw man dam su dee lu l'une dee parties à refusé de ratifier li ñu signé woon li ñu signé woon li ñu bind war koo signé li waaw ñi jaagar jaagar ak moom depuis Conakry ba fii Ndakaaru nanguwuñu ko xool ñu ko signé. non mais ça va loolu mais non non loolu loolu loolu aussi je si s'il y a un

ñu ngi négocier pour que Karim war a mën a ñëw. mooy protocole. voilà dama yaakaar laa la wax. ba léegi dama yaakaar. Mhm. donc en 2019. la non je dis audience Massalikul Jinaan bi. non je dis en moo naa yaakaar ne Karim il était sur la bonne voie mais entre 2019 ak 2024 man aujourd'hui j'ai évolué je me dis écoute Karim war na mën a ñëw parce que rien ne l'empêche de venir voilà le problème. Mhm. donc waroon nañu ñëw jël à à téye ñi fi nekk dans le parti ñu liggéey pour que aujourd'hui ñu mën a assurer la survie du parti mais ça ne s'est pas moo tax man ma ne aujourd'hui du ma topp Karim ci ay bëgg-bëggam